gën a Sénégal yëpp ñoo àndandoon ni pack food dara fayu ko weeru koor gi moutarde ak vinegre pack food dañu taxaw ci seen wet suñu équipe yëpp noppi nañu loo jënd ci moutarde ak vinegre pack food ak suñuy pat ñu daal di la koy livrer fa nga ne xoolal suñu arsenal suñu équipe yëpp pare nañu lépp noppi nañu fu ay mën a ne ñu livrer la li nga xam ne moom nga jënd ci waa pack food pack food nag ah dañoo mënee suñu boor de dañu lay liggéeyal lii dara fayu ko food am nañu nag li nga xam ni moom moo di maanaam vinaigre de qualité supérieure am moutarde de qualité supérieure loo taamu vinaigre loo taamu moutarde pack food laajal lalla lu mu togg mu neex lu mu togg ci jën mu dem ci yàpp mu dem ci ginaar mu dem ah pack food dëgg-dëgg dara fayu ko vinaigre moutarde macaroni ak produit pack food yi qualité supérieure la lii dara fayu ko weeru kooru jàmm ak moutarde ak vinaigre ak équipe bu pack food yëpp jàmm ngeen fanaane sant sant bu wër waay bëggoon yaa bu ndaw bi ñëwee ba tey moom dafa mel ni sa mbégte mi ngi si sachet bi de ah Gloria bu ndaw daal mooy suñu soppe meew bu faree nii neexee nii ba pare di jar cent francs dong dëgg-dëgg ndekki bu àndul ak meewu Gloria lu mu na rees ak jàmm ak Gloria bu ndaw ci 100 francs dong Gloria amul moroom benn la fi Nestlé good food good life dama Toto Toto coom yow alaaji mbaa bu jur xam rek déedéet bu mhm. jur xam dog ngeen waaw waaw suur ngeen saf na ah neex na xale bi xale bii xale bu ñu sol ci mbuusu mag la dama kaa ragal man xale wuñ ko fii sax ii xale bi dama ko ragal ba ci bëri na wax trop. dafa bëri wax ii dafa bëri wax daal xale bi. Mhm, waaw waaw bëri wax day doomu aawa la waaye day. ah yàlla baax na. man bàcc mii. bëri na wax trop. nee naa leen xale bu ñu sol ci mbuusu mag la. waaye doomu aawa la xale bu ñu sol ci mbuusu mag la de waaye moo tax ah. bépp mag bu nekk. war nga ko sóoraale te lépp looy def ak moom tamit na leer. waaw mm. waaw. yàlla baax na. maa dogu ngeen ba suur rek. alaaji. waaw waaw waaw kay dogu nañu ko ma xale ah. def noonu la. totali bi yow chéri. xale la <laughs> alaaji moom ñaareel sa na. Mm. saf na. saf na saf. alaaji. maa dogu nga. man dogu naa ba kontaan. bëgg nga. fu mu nii. Mm. désert rek laay wër. di la rek. chéri yow dangay ngay xaar ba alaaj ji naan. tombé saf. walaay. tombé saf. lekk nga ah kon ñam nga ci. alaaj sedd na. oh léegi nag. Uh-huh. balaa may xam ne takk naa ñaareel dëgg. Mm. sama ndong lii. Mm. ma teg ko sa kaw tànk yi. wala dara métti yàq xam nga woon. ñu ndogu waaw doo ma ci seet sax bàyyi ma dugg fa dafa sonn ay alaaji. parce que coono dafa sonn ay ah je me dis la mbaxane bi. bàyyi ko ci bàyyi ko ci. doo feex tuuti. yaa ngi déglu nag bopp bi tuuti ah. mën ngaa dem ci biir. ah waaw jotaay bi dafa xat ci yow. man kay maa waroon dem sax nga ba pare kay maa waroon dem sax balaa ñu ma koy wax. Ah. xam naa ne. foofu muy wute ah. waaw. naka sa journée. sant yàlla. maa ah, sonn. chéri moo demoon. ah mon cœur waaw waaw baax na waa ci kanam tuuti. ma ñëw dekkali reer ci kanam tuuti rek. gis nga li ma ba ba kontaan nga ci. wala gis nga li ma babal. kontaan nga bébé. ay sama bébé nag alaaji. alaaji ma sa coolo. xam nga waykat yi ku ma ci gën a soof. ki way aawa buuru këram way boobu mënu ma koo dégg. way boobu daa neexul sax. ay la la la. kenn du leen way ba way ba neex. wallaay ba dama waroon gis ku la wayal. Eh. yow ñaareel xaritu jëkkëram waaw kan moo ko ci déggoo ki ko way kan na xale bi nu mu tudd ci waay ki naan dafa ñëw ci kéew bi waaw gis ñaareel di bàttali di jox goro yeeg njëkk yeeg waaw ci kër gi sax foole <laughs> kenn day ñun ñaareel yi rek ñoo ko yor de wallaay wallaay Youssou Ndour mos ta way ñaareel yi Youssou Ndour hmm. war na leen a way nag war na leen a way hmm, hmm, eh. a oreye nag gën naa koo jënd déedéet kay oreye may daaneel na woon ci taay fii li ma gën a bëgg taay la man ma gën a bëgg jeex gis nga ma tata damu nomm naa la de maa la raw lu bëri maa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu wér maa la sopp gone gi le daank dox daank dëgg daank kenn xamula ci koñ bi addinaa demee noonu la ci loone maa ngi nii di sant yàlla ay ana bàccu kàccoor bi ay bàccaa nga fa di bandi doy waar booy boobu <laughs> en gis nga ndax de barki démb mhm. bàcc li def man soppuma ko na bàcc kañ noonu mooy jour bu ma fi ñëwee ñu tase di jënd ton ah, waaw wax nga dëgg waaw waaw mhm. jour boobu bàcc dafa fen waxuma ko nag pour yàq waxuma ko pour dara mhm. waaye bàcc ndaxate te taamam yónni wu ko sa wujj bi si kër gi moo ko yónni sa wujj kan ah ki ci kër gi xaw ma sax nu mu tudd sa man mi waaw ah da wax rek ah moo ko yónni ba pare aussi fen loo bàcc bàcc dugaluma ko ci dara loo xamante ne lu dul dëgg man de maa mi ah nga ne moo ko def moo ko def de waxuma ko nag pour yàq wax dëgg yàlla waxuma ko pour yàq waaye bàcc dama ko yar ci dëgg ak lépp lu mën a defit bu ma ko laajee dina wax dëgg maa ngi ko comprendre. li hmm. mhm. nga waxee dëgg ndax romb na ma ak mburu man sa gisante nañ jour boobu jour bu ñuy tax li ko man ak bàcc di jënd foofu ton mbëkkante naa ak moom waaye xaw ma nu mu demee waaye vraiment seen affaire yi kër daal su ma sañoon ngeen di génn ci bàcc. yow na sa nakar dudd loolu man maa koy réglé à ma manière. waaw. Eh, yow doy waaxu ni. léegi laa dama la xool ci bi ci gis ma ma dugg ci biir. li may waaxu de lu lenn lu dul oyomel tey ci kër gi guy gu safu laal. kii nga xamante ne jeeg la boo xamante ne manka kunka kunka nag tekkiwul dara démb ak tey ñaareel bu dof bi ci kër gi doo ma laaj lu mu def. doo changé mu. waaw laaj ma lu mu def. nii nga bëgg a jàppee sa àdduna xam nga xale bi dëkk ci koñ bi bàcc la xaw ma tam tam tam doon jënd fii rek xale bu waaw kay ndekete daal yow li ma topp fii bàcc naa ko bàcc del wax dëgg yooyu ndekete ndaw si moo yónni bàcc ko dama sa tante ndey la nga jëndal ma fa mburoog waaye bu mu yëg ni man maa lay moom dèjà xale bi ay fen léegi loolu lan la si jublu tey nag lu mu si bañul du ko ci bañ dinaa teg moom lu mu ci bañul du ma dinaa ko dóor ba war ko tey dinaa ko dóor ba war ko te bu ma xawal yow bàyyi ma waay yow bàyyi ma yeddaat sa bopp yow ma ne nga dimbali ma yeddaatal sa bopp bu baax dimbali ma gis nga yow sama bopp doo nit man naa la nit nga barki dem bi ma toog yow ma la wax fii dugg sa nopp bi jaar fa ca des yow nag doo nit gis nga nit dangay yedd sa bopp yow dimbali ma yow daal leela nii rek sama yow nekku ci yow daal leela doo changé mukk yow Fatim Penda sax ma laaj la yow yow sama xarit nga wala xaritu kii man nit laa moo tax ma di la sañ laa wax dëgg bu ma woon si du ma la sañ wax dëgg kii baal jàmbur bi defu la dara te mosuma ko gis mu comporté woo benn comportement bu bon jëmale ko sa kaw. day tricher dong waaw baal jàmbur bi. day tricher dong da nga a dong xam naa la. yow dama ne la boo doon sama nit la. boo doon sama nit yow. boo ma fekkee ma nekk ci guerre danga may guerre la ba mu saf sàpp. bu jaree filmer sax nga filmer ma. a filmer naan xeex lay doon su ko defee ma xëyee am ma dugal estati. yow lay wut buzz li nga waroon def. lay wut buzz wutuma buzz man dama amee buzz day tay dama mën a xeex. dama nga xeex yow bàyyi ma man yow man xaw ma yow moom ah, sama ànd ak yow man dinaa ko yow yow man dinaa seetaat sama ànd ak yow Fatou Penda yow sa gàttaay nga mel ni omelette. man li ma gën a bëgg taay fi la. na génn na génn na génn na génn na génn tuukat bi mu doon na génn. man li ma gën a bëgg taay fin la man li ma gën a bëgg jeeg bu gis la non man bëgguma jeeg bu gis li may daaneel na wut ci taay